dal leen ak jàmm ci seen jàngatub bés bi tey nag kiñ leen di xamleel mu ngi juddu le 10 mai ci atum 1927 fële ca Bogué nekk ci les rives du fleuve Sénégal moom ay waajuram di wuyoo ci turu Awa ak Samba Diop moom moomee turam di Demba Diop moom Demba Diop mu ngi màggee fi nga xamante ni moo di Dakar fréquenté nag école Albert Saro moom it mu ngi am rek ay diplôme am ci fi nga xamante ni moo di école William Ponty ci atum 1947 foofee sax la daal di euh, doone titulaire du certificat d'aptitude pédagogique waaye itamit ñu daal koy affecté ci région wu Sédhiou mu daal di dakkal li nga xamante ni rek moo di carrière am ci wàllum militaire ca Ndar Géej mu daal di ñibbisi nag ci atum di koy affecté ci collège moderne bu Thiès en tant que surveillant général foofee sax la daal di dajeek soxnaam si di Caroline Faye ci atum couple bi nag ci lañ leen daal daganal seenu Diop diggante waaye tamit Demba Diop daal di rejoindre fi nga xamante ni rek moo di école régionale bu Mbour ci atum 1958 ñu daal di koy yóbbu ci cours normal bu Mbour mu daal di fay rek nekk comme surveillant général waaye nag ay baatu ginnaaw bokkoon na ci surveillant boo xamante ni dafa sévéroon maanaam da daan jox gëdd gi nga xamante ni moo war liggéeyam ba mu ci jógee moom Demba Diop dafa daal di rek dugg ci langum politique bi ànd ci ki nga xamante ni moo di soxnaam Diop ñu daal di koy euh, nommé lii di secrétaire administratif de la région de Thiès moom it mu daal di nekkaat ba tey conseil régional bu mbuur waaye itamit nekk njiital commission finance bu assemblée nationale ba tey nekk tamit ci bopp groupe parlementaire bu assemblée nationale moom Demba Diop itam doonoon na commissaire politique bu région wu Cap Vert waaye nag ci atum 1966 ca la rek daal di nekk député maire doon itamit ministre de la jeunesse et des sports du Sénégal ci atum 1962 bi at yi weesoo ba ñu dem ba ci 1967 yemoog nag 3 février ci la ñu faat nag doomu Awa ak Samba Diop bi anam wañ ko faatee nag ñaaw loolu ndaxte dafa am rek ab waay buy wuyoo ci turu Abdou Ndafa Faye moom nag lañu daldi rek fay ngir mu faat ki nga xamante ni moo di Demba Diop ginnaaw bi ñu nekkee woon ci ab réunion gouvernance fële ca Thiès ci la rek waa ji di Abdou Ndafa Faye yoroon ab paaka daal di jamati ki nga xamante ni moo di Demba Diop moom Abdou Ndafa ka la mu xamle rek moo di e, faat gi mu faat kii di Demba Diop doon ko ko sant te député yi di wuyoo ci turu Jacques Derneville ak kii di ibu Kébé ñoom ñoo ko ko sant ci jamono jooje sax ñaari député yi dañoo rek daal di dawoon waaye nag police e, teg e, loxo kii di Abdou Ndafa Faye ñu daal di koy tëj ki nga xamante ni nag moo nekkoon ci bopp réew mi ci jamono joojee di Léopold Sédar Senghor daf grâce présidentielle loolee waral ba tribunal bu Dakar dañu daal di rek condamné woon ki nga xamante ni moo di Abdou Ndafa ñu daal di koy daan li di penn capitale bi ñu demee nag ba le 10 avril ci 1967 ba tey ci lañ ko daal di rek exécuté maanaam ci lañ ko daal di faat moom Abdou Ndafa Faye ci moom moomee sax la ñu daal di rek njëkk daganal li nga xamante ni moo di peine capitale waaye nag donte ay atam néew na lool ci li mu dund moom Demba Diop ndaxte mu ngi dund rek xamante ni rek moo di bëgg-bëggam ak mbébétam bi mu amoon ci Sénégal moo waral ba tey ji tuuram di woy di law boo demee ca Mbour bokk na ci lycée bi nga xamante ni duppee nañ ko ko waaye itamit fii ci dakaar ci stade bu mag bile nga xamante ni moom la ñuy stade Demba Diop moom lañ ko duppe mbokk yi li moo nekkoon seen njàngatu bés bi ñu leen di jox dig daje ci fan yu néew rek ci beneen personnalité waaye itamit ci ay jaar jaaram di leen jaajëfal ci teewlu bi